boo leen doon compter kenn xamul nu mu toll peut-être profil boobu aussi profil c'est-à-dire euh, comment dire euh, spécialité. du mmh. candidat ça mhm. ci ay élections présidentielles et ça dicte aussi la conduite même du candidat loolu c'est très intéressant ñu bàyyi ko xel bi ci des am gis naa ci ñoo xam ne bon Serigne Mboup candidat la. waaw Anta la. Mhm. y a des comme Pape Djibril Fall kenn. profil bu nekk ma ne la secteur bu ñu jàpp ne fi mu toll dafay sooxee am na ay acteurs yu fa jub nekk candidat ci élection yi ñu jëm peut-être seen motivation mooy secteur boobu d'abord ñu soqali ko mais l'enjeu bi Sénégal toll surtout ci élection présidentielle c'est l'économie du Sénégal mmh. qui est en jeu avec ses découvertes de pétrole et de gaz donc dañuy soxla ku xam-xamam euh, nàcc ci côté domaine boobu noonu pour que peut-être économie Sénégal jaaree fa soqali maintenant baalu ma ñëw ci nombre bi mhm. nombre de candidats bi problème bi mu njëkk indi mooy dafa dafa toucher euh, le fichier électoral. Mhm. parce que on ne peut pas compter par exemple plus de cent candidats. candidat bu nekk ñu laaj ko minimum quarante quatre mille électeurs quarante quatre mille signatures. Mhm. jël leen quarante jël cent cinquante rek bu leen jël sa cent soixante nangam yi jël leen cent cinquante candidats. Mhm. yaa ngi dégg candidat bu nekk ñu laaj ko quarante mille signatures nga jël quarante mille signatures multiplier ko par cent wala cent cinquante wala nombre de candidats. da lay jox six millions. six millions cest di dire dafa jege catégoriquement ak le nombre bi nga xamante ne mooy ci élection présidentielle te ci cent cinquante te ab te mhm. ma ne gëw ma ne loolu c'est possible mhm. léegi ma détaillé tuuti loolu muy benn problème mhm. ñaareel bi mooy fichier électoral bi sept millions yi ñu wax ne peut-être ñoom ñooy dem ci ñoom ñooy ñoom ñooy dem en général di voté ci nekkul sax sept millions yëpp ñooy dem en général nekkul 7 millions yëpp ñooy dem mhm. parce que déjà le cas de Touba léegi réglé wuñ ko am na ay villes yoo xamante euh, am na ay candidats yoo xamante ni peut-être bu ñu demut bu ñu leen galgalee mhm. ñoom seen i militants du ñu dem vote ji. waaw parce que Touba du am bureau de vote. Mhm. donc yu condition yooyu yëpp dafay jouer en même temps boo xoolee ci ci élection yi ñu jëm ñi nga xam ne ñoom ñooy candidats yi dafa am fu ñu gën a foorle. da ngay gis bu mel ne ñu ne Pikine moom moo ko moom. yow ci sa biir cible kon dernière minute ngay matal yow bu fekkee di nga matal parce que normalement sept régions lañ leen di solliciter à ce que ñu ciblé ko c'est-à-dire mm. chaque candidat cible sept régions région yi ngay ciblé bu fekkoon na sax région boo jël amul beneen candidat bu ko jël. mën nga mm. matal say say say signature. mais mën nga dem benn région boo xam ne candidat yu la gën a potentiel yu ñu gën a miin ci langue politique. ñu am ay euh, ñu am base politique foofu. Mm-hmm. ñoo nga fa d di wut ay signature te yow mosoo sax am mouvement waxuma la parti mu nekkaat beneen question. li la doon li doon facilité nag li ñi gën a am sens ci élection yi nekkul les partis qui vont seuls ci élection yi ñu ci am sens dëgg dëgg dëgg mooy parti yi nga xam ne dañu dem en coalition. yi parce que bu la sa bu parti mënul matal peut-être euh, allié bi mën la mottali ay signature ensuite am na ay partis structurés wu yoo xam ne ils ont réglé problème de signature depuis il y a deux façons de parrainer mooy le nombre de de députés yi ñu doon wax keroog. boo amee nombre de députés yu suffisant mën nga bañ dem sur le terrain cest à à la place que ngay dem di wuti ay signature sur le terrain mën nga ko soppali politique dem di def communication sur ton candidat donc loolu c'est possibilité ñeent xawma je pense ñeent parti ñoo ci mën a am possibilité yooyu te ñoom ñeenti ñëpp amul kenn ku ci dem jëli sa nombre de nombre de député ñoom ñëpp dañoo wàcc sur le terrain muy Benno Bokk Yaakaaroo Taxawu Sénégaloo muy Pastef donc ñoom ñëpp dañu choisir sur le terrain pour faire contact direct ak. Euh, population ak population. Mhm. mais ñi si des nga xam ne mosuñu am parti politique wala ñu ngi soogal dëggu ci langue politique gi ñi ci am base am nañu tuuti sens pour mën a am nombre de signatures bi ñu soxla mais ñi nga xam ne dañ ciy soog a dugg ñoom tamit loolu day nekk benn couac ci ñoom benn problème pour ñu matal bu fekkoon nombre bi réduire nañ ko. maintenant fi may jeexalee mooy euh, doublage yi moo nar a bari. Mhm. saa yu réew lañ foo xamante ne nii. ñi jàppoon ne xaalis mooy régler problème signature yi. Mhm. ñu bëri ci ñoom dinañ leen nax ren. même Amadou Ba mii mën na am problème ci côté euh, signature yi parce que sénégalais yi am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi toll ci mentalité ku ma jox ma jël. mais du yow dong yaa joxe boo joxee jàpp am na kenn ku morom day a cent et quelques candidats am na ñoo du terrain bi mu leen koy may xaalis mu leen di may signature. donc loolu yëpp dafay jouer ce qui veut dire que bon naka lañ mën a. mais nag benn benn affaire xam nga démb yaa ngi doon naan on peut s'attendre à ñu am euh, plus de dix candidats. Ah. mais déjà ak liy dessiné wu nii. 192 candidats non responsable cinq candidats sax suñ ko amee dina bëri xam nga lu tax. Mhm. li ngay wax léegi doublon yi. doublon yi waaw. parce que yi du mat. pour mën a parrainer list yooyu man dama jàpp na forcément ci critère yi ñu teg ci cadre parrainage mhm. dina amaat yu ñu ci yokk fii ñu jëm fii ak fii ak fan yi ñu jëm yoo xam ne conseil constitutionnel ci boppam mooy chargé waat critères yi pour gën ko sévéral mhm. pour réduire le nombre affaires yi c' mhm. est facile nag pour ñu am ay doublage moom c' est facile pour l' parce que yow foo dem da nga fa fekk ni kër goo dugg actuellement jàppal na ñetti candidat ñu ngi fay wut signature te benn nit mën na ci def quatre signatures donc nag maam soxlawu sa euh, conseil constitutionnel. di lever le droit euh, le doigt. waaw mais mais mais mais mais. jaru ko. ah <laughs> gars yi waxal la nag am na fu ñuy toll. Mhm. xam nga xam nga am na quatre tey boo xoolee configuration bi dina am ñoo xam ne da nga naan ñii par force dañu am dañuy am signature. Mhm. parce que dañ ko liggéey avant nga xam ne ñii moom amuñu problème de parrainage. mosul mhm. nekk seen problème boo jëlee Khalifa Sall yaakaaru ba mu am problème de signature. boo jëlee Déthié Fall man yaakaaruma ko parce que depuis mu ngi liggéey boo jëlee boo jëlee Pape Djibril Fall yaakaaruma ko peut être. maam nag ku li ku liggéey récolté li nga li nga li waaw ah. mais nag. xëy na ñi nar a am problème dëgg dëgg dëgg mooy ñi ñu soog def bërët di comme genre Youssou Ndour gi mën nañu am problème ah problème de signature waaw mën nañu am comme genre ñi nga xam ne dañoo fàqee ci nguur gi wàcc sur le terrain donte amoon nañu base mais seen base c'est une c'est une c'est une base hmm. la laaj Mm-hmm. pour ñu mën a pour ñu mën a nangu ne yow sa profil joxe na nga nekk président de la république il faut nga tànn rek sept régions sept régions yooyu puisque am nga fa base. ci mm-hmm. dernière minute yi nga régler sa candidature ça pose une question donc daal ce qui est sûr mooy la réduction va être sévère. Mm-hmm. te dina bëri ay surprise dina bëri ay surprise trop trop trop trop trop ci recalé yi. dina ci bëri ay surprise parce que di nga gis candidat bu nuy musul yaakaar ne dina am problème mu parrainage. ñu recalé ko ñu kale ko ci nii waaw.